ëpp solo daal mooy que ne campagne bi danañ teel jeex Tambacounda xam ne ne euh, zone boo xamante ne zone u béykat la euh, ñu siy liggéey si àll bi mois de mai juin dañuy teg affaire matt bi nii dem liggéey liggéeyu tool yi mu doon tax da nga gis liggéey ba mois de mai nga war matt mu bëri waay jota ko ko amagoo jot pour def ko këriñ suñ dag arrêté dagg heure bu période bi nag yow dafa mel loolu nga defoon non seulement da ngay ñàkk liggéey waaye matt ba nga fa bàyyi mu nekk jalu te mënoo ko yoon mayee doo nga lekk ko këriñ mun na indi ay feux de brousse le colonel major donc docteur des eaux forêts ko joon mu su lëkkaloo eaux forêts laaj suñu xalaat laaj xalaat également waa UNICEF ñu ne la ñu suñu sago fexe ba yokk durée bi moo tax ren nag dañ ko yokk ñetti weer mu jóg si mois de mai dem ba mois de octobre léegi si nekkoon ne yeneen yi mooy lu fa ne mën Casamance bi dañ koy continuer def parce que dañu ne fur boobu moo gën a baax tronçonneuse bi dañ ko wàññi dañ ko dañ ko aaye je pense bu ñu fa jógee ku nekk da nga xam fa nga teg si tànk ba moytu ëllëg si biir nga amee jàmmaloo ak eaux et forêt parce que doone xamuma ko woon.